di leen di ndokkeel ci weeri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom lañ jóge di leen di yëgal xew-xew boo xam ne nii fàttewuleen ko mu nekk journée culturelle Cheikh Ibrahim ñees bi nga xam ne jamiyatu ansaaru diin bu Dakar fii ñoo koy organiser ànd ceeg mbooleem groupement yi nekk fii ci dakaar ak ci Sénégal yëpp di oo ñëpp ci bés boobu nga xam ne bési Cheikh Ibrahim Niass la anniversaire yi Cheikh Ibrahim Niass la lu tax ñuy def journée culturelle bi ci 8 décembre li anniversaire boo xam ne 8 novembre la doon nekk waaye yàlla dafa def ren 8 novembre tombeek gàmmu moo tax ñu yóbbu ko bala le 8 décembre ñu ci oo mboolem taalibi Cheikh Ibrahim Niass fu ñu mën di nekk képp ku ci dégg lii rek na nga xam ne yaa xewle ndax jamiyatu ansaaru diin moo xewle te bàyyi moo ne woon suñ buggee xam su moom topp ñaata lañ rek suñ xamee ñaata ñooy membre jamiyatu ansaaru diin danañ xam suma topp ñaata lañ ñi ci ñi nekk ci biir réew mi yëpp ak ci nekk ci bitim réew rawatina muqaddam yi nga xam ne ñoo dëkkee parce ñëpp di wax bés bi mi ngi noonu journée culturelle bi nag niñ koy doxalee bu ñu xëyee incha allah danañ def ay kaamin ñaan yàlla bu ngoonee bu ñu añee ba noppi ñi jëm ci tànt ba teel a ñëw ndax Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Ali Cissé bëgg nañ mu ñëw jullee si fa tàkkusaan bu paree rek commencé conférence boobu noonu ci lan lay defee thème bi thème bi ñu ngi koy def ci rôle de la jeunesse dans la société lu waral loolu parce que moo Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dafa bàyyi woon xel ci ndaw ñi lool moo tax ñu ne thème bi nga xam ne moom la ñuy def dafay nekk lan mooy wareefi ndaw ci société bi nga xam ne ci lañ nekk ak fu ñu mën di nekk eh, dëgg-dëgg fàttali la te yàlla moo wax ne zakkir fa inna zikra tanfaul muminin na ngeen xam ne daal eh, jamiyatu ansaaru diin ñoo woote ñan ñooy jamiyatu ansaaru diin mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo àndoon ak Baay pour dimbale diine mooy mbooloo mi nga xam ne nii ñoo nekkoon Kossy mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo nekkoon Taïba mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo nekkoon lew na mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo nekkoon Medina bàyyi te ñoo fa nekk ba léegi mooy mbooloo mi nga xam ne foo dem ci àdduna bi ñu fa kon mbooloo boobu ñoo oote ci lislaam ci lan ci seen guide muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mi nga xamante ni ñun war nañu rek ñuy fàttaliku bésam ndax yàlla dañuy dimbale di ci nooyal suñ xol bi comme li yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dinaa la fàttali xibaar yi yonent yu la jiitu woon pour nga dëgëralee ci sa xol kon ñun suñuy nettali suñ soppe bi muy Cheikh Ibrahima Niass yàlla danañ ci dëgëralee suñ xol yokku ci suñ ngëm ndax moom yitteem yépp yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci woo daal ñëpp bàyyiwuñ kenn ci teewaayu nag Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne moom mooy représentant xadara bi fii ci Dakar ak suñu yaay Seyda Mariam خادمة القرآن عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك